projet bi kuréel gi koy taxawal mooy waa daairatu ansaaru diin al islaam yi euh, sëñ Mourtala Mbacke euh, ibnu Cheikhul Khadim moo leen ko tudde woon muy daaira boo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu xam ak xam-xam ci wàllu culture nga xam ne suñ lépp daaira bi daal ci wàllu culture la wàllu exposé wàllu def ay conférence ak yu mel noonu euh, daayira bi nag boobaak léegi xam naa ne war naa mat vingt ans boog sëñ Mourtala sos ak léegi tuddee ko daayiratu ansaaru diin al islaam ñu ko daan ziare chaque année Euh, bi mu fi jógee làkku ñuy ziare doomam xalifaam sëñ Mamour Mbacke Mourtada euh, yeneen yi ñuy def it mooy euh, daayira bi dina def am na benn ziar annuel bu muy def chaque le premier mai nga xam ne mboolem école yi al azhar yi ñooy daje fële ca ndaam ziare sëñ Mamour Mbacke Mourtada bu loolu jàllee it am na benn université d'été bu ñuy organiser Touba nga xam ne chaque vacance dañuy jël am la la 10 jours wala 15 jours di def ay ay ay cours ci suba si ngoon si ñuy def ay conférence Euh, daayira bi daal yitteem jëpp mooy jàng ak jàngale ak yëngu ci wàllu xam-xam loolu mooy kii daayira bi daayira boobu nag moo taxawal exposé bi nga xam ne at mu ñoo fii ñëw def benn exposé euh, léeg-léeg mu changé ren changé na bu baax ndax xam nañ ne bés bi dañ koo jagleel sëriñ Mouhamadul Fadil euh, am nañ ci ay ay ay exposé yoo xamante ne dañ ko spécialisé ci jagleel ko Cheikh Mouhamadul Fadil loolu moo ci bés ren bu ñu nee Sarsara euh, dafa nekk bu génn kuréel benn benn gox boo xam ne dafa nekk ci ci ci euh, penku Mauritanie alors léegi nag ñu gis ne yéen it euh, dañ leen dañ leen fees ci Sarsara lan moo leen dugal ci biir Sarsara. waaw ñun li ñu dugal ci biir Sarsara mooy Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ñu ci dugal ndax moom bokk na ci ñi nga xamante ne njëkkoon nañoo ñëw fii ba ki fi toogal yoonu murit sax doomam la muy seen Sidi. mu mel ni sëñ Mourtala moom moo doonoon euh, doom ju mujj ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye amoon na relation it ak ak waa Mauritanie relation boo xamante ne ñëpp xam nañ ko moo tax bi Sarsara dekkee euh, ñu doon gëstu barab ba mu leer moom mu joxe ndigal ci ñu di fi ñëw waaye di fi fekk doom ji nga xamante ne moom lañ fi fekk muy seen Sidi seen Sidi defoon benn appel ci magam sëñ Saalih Mbacke Mourtala xamal ko ne ko damaa bëggoon waa daayiratu ansaaru din ñëw di ma jàppale ci ci màggalu Sarsara gi loolu mooy li nga xamante ne ñun moo ñu fi indi. Mm-hmm. léegi nag mu mel ne kon yéen da ngeen di taxawal ay conférence waaye di def ay exposition exposition chaque année dinañ buñ dikkee dinañ fekk ngeen def ay exposition ndax benn thème lay doon wala dafay am thème yu wuute. exposé bi ni ma la wax léegi thème yi day wuute thème yi day wuute ndax ni muy wuutee mooy euh, conférence su euh, Sarsara bi ren dañ ko joyal jëmale ko ci alxidma alxidma léegi loolu changé na parce que beaucoup dee conférence daaw bi bu ñu xoolee it parrain yi ren dañ ko de Cheikh Mouhamadul Fadil kon ci exposé bi am na ci ay côté yoo xam ne dañ ko jagleel Cheikh Mouhamadul Fadil loolu mooy changement yi nga xamante ne moom moo ci am te mu nekk ay changement yu am solo xam naa buñ buñ demoon dinañ dinañ ko détaillé mën ko leeral wax alxitma ak euh, profilu sëñ Fallou ngeen moom moom mooy gën a fës ci exposition. waaw léegi alxitma ak profilu sëñ Fallou ñu ci gën a fës ndax sëñ Fallou dafa nekk exemplaire ci xitma exemple la ci xidma ndax gis nañ bi euh, sëñ Mourou Moustapha làqoo euh, liggéeyu jumaa ji euh, taxaw raay bi taxaw yëpp taxaw waaye ci xidma maanaam soññ murid yi ñi liggéey te yàlla tax ci la dem ba àggale liggéey bi fi nga xam ne na fa àggale ñu bëri sax dañ ne bi sëñ Mourou Moustapha nelawee wala boog sëñ Mourou Moustapha tubaab yi dañ ko waxoon na ko léegi pour murid yi liggéey jumaa ji pour fësal xidma il faut nga di leen jox yàpp ba pare di leen fay nga xam ne euh, murid yi dañ ne léegi sagam lekk yàpp gi moom mënta nëbbu loolu nañ fexe ba mu am waaye ñoom ci seen biir ñu ne bu leen sëñ bi fayee ba pare bu guddee nañu ramassé waat leen sëñ bi fayoon dem joxaat ko sëñ bi loolu doon loo xamante ne xidma la yoonu murid nga xamante ne genn payor la nga xam ne xidma bu ñu xoolee yoonu murid lépp lu fi taxaw xidma moo ko taxawal ba ci masaalikul jinaan gi ñu mujj taxawal mhm. waaw waaw waaw waaw fii dañ fee dañ fee exposé maanaam mag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ak sëñ bi maanaam mag ñi magi mur yi nekkoon ak sëñ bi bu ñu xoolee kii mooy sëñ daam sëñ daam euh, Abdourahman Lo muy mag ñoo xamante ne ñoo jam kii ah sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi noonu lañ ko toppee ba mag yu bëree bëree bëri ñi nga xamante ne ñoo jamonoonte woon ak sëñ bi euh, ñoom lañ def fii ci exposé bi. kii moom xam nañ ko moom lañ moom mooy parrain wu bés bi muy Cheikh Mouhamadul Fadil euh, bu ñu xoolee lii benn njàngat la wala boog benn njàngale la ci dund ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu euh, bu xoolee fii dañ fee génne Cheikhul Khadim maanaam euh, date bi mu gane àdduna ba fi nga xamante ne fi la làqoo waaye génne it. événement bi nga xam ne mooy Sarsara bayit yi nga xamante ne moom la defoon ak it lam waxoon tubaab yi ci yaa jumlatan wa maxaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu euh, boo xoolee fii mu indi la hamdi wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda Sarsara nga xam ne mooy xasida gi nga xamante ne moom la sëriñ bi indi woon ci Sarsara buñ xoolee fii ba tey ay ay témoignage yu yu yu yu Cheikh Sidiya témoignage yu Sëñ tubaa الشيخ أحمد نعمة أولاها ah haadi xalaa'iq kullaha mawlaaha Cheikh Sidiya mi dem na ba wax ne sëñ bi ni'matu ayatun min ayatillah maanaam kéemtaan la ci kéemtaan yàlla yi doon na wax sëñ bi ne ko wa maa aybuhu illaa wa maa aybuhu illaa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaa'ihi loolu mooy euh, Cheikh Sidiya dane sëñ bi bu fekkee ne am na ayib mooy jaamu yàlla ak jariñ nit ñi ci suba si ak ci ngoon yi buñ xoolee fii dañ fi indi sëñ bi da ciy jàngale al ibada muy jaamu yàlla ñun ñëpp xam nañ ne sëñ Touba lim am lépp ci jaamu yàlla la ko amee waaw gis nga walla ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faaza man lahu xasal buñ xoolee fiit sëñ bi ku ne xam na ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa joyaloon dundam jëmale ko ci al adab adab mooy teggin buñ xoolee fiit dañuy joyal ne sëñ bi dafa joyaloon ak dundam jëmale ko ci li ñu di al kasbul xalaal kas bul xalaal mooy sàkku sàkku lu dagan dagan yooyu moom lañ tënk fii ci euh, exposé bi fii nii euh, bu ñu xoolee fii fii dañ fee dajale maanaam njaboot ak cheikhul xadim nga radiallahu anhu euh, bu ñu xoolee fii cheikh mouhamadul moustapha moo nekk nii fii lañ def histoire moom it cheikh mouhamadul fadil cheikh abdul ahad cheikh Souaïb cheikh Abdoul Khadir euh, Serigne Saleh Mbacké cheikh Mouhamadul Bachir euh, cheikh Mouhamadul Mourtada cheikh Mouhamadul Amin ak cheikh Ibrahim Mbacké yi nekk ay njaboot yoo xamante ne ay njabootu euh, Serigne Touba lañ radiyallahu anhum bu ñu xoolee fii dañ fay exposé gis nga lii moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare yi nga xamante ne daana ko def wala boog defoon na ko bu xoolee fi xasatu badr def nañ ci dat yi datu jullit yi ak datu yëfar yi xasatu uxud xasatu xandak xasatu xudaybiya xaybar fatxu makka xasatu xunayn xasatu tabuk yi mooy guerre yi nga xam ne yonent bi sallallahu fekke woon na ko bu xoolee fii fii mooy barabu Omar ibnul Xataab fi ñu denc Omar ibnul Xataab fii mooy barabu Aboubacar fii mooy barabu yonent bi sallallahu alayhi wa lii ñu wone nii mooy moo doonoon màkk ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax màkkatal mukarrama fi ahdi fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa bu ñu xoolee yi ay jeexintal la ci bagage yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko yoroon lii ci dàll yi la bokk yii yëpp ay bagage la yu mu yoroon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ xoolee fii ci kaw dañ fiy gis ne lii mooy aw askanam nasabuhu sharif ñu commencé ci abdallah ba ci adnan ñii mooy ay maami yonente bi sallallahu alayhi wa buñ xoolee fii ñii ñoo dokkoon soxnaa yonente bi sallallahu alayhi wa euh, commencé ko ci xadija bintu xuwaylid sawda ba ci ñii ñoo doon ay doom doom yu góor yaa ngi ni qasim abdallah ak ibrahim doomi jigéen ñi mooy zeynab Ali ak Amaama ak Roqiya ñii noo doonoon yow njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii doon benn benn portrait ci sëriñ fàllu ndax ñun ñëpp xam nañ ne bés bi euh, sarsaara ren sëñ Fallou lañ ko jagleen moo tax sëñ Fallou ñii ñooy ay xalifaam ñii ñooy njabootam buñ xoolee lii lépp ah, day joy jëm ci. Euh, sëñ Mouhamadul Fadil ab liggéeyam lii ab photom la boo xamante ne gis nañ mook Cheikh ibrahim Niass ñoo fi ànd lii photo la boo xam ne gis nañ ne mag ñi ñoo fi ànd ak autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon kon lii ci gàttal benn portrait la ci dund ak Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu bu ñu ñëwee fii fii euh, dañ fay exposé bu dee ñii ci kaw mooy jullit yi nga xamante ne euh, histoire marqué na leen ci àddina bi histoire marqué na leen ñu commencé ko ci euh, Omar ibnul Xattaab ñii buñ xoolee amuñu photo parce que ñii ñooy saxaabatu rasul kon ñu ngi commencé am photo ci Taariq ibnu Ziyad ñii ci kaw mooy jullit yi nga xamante ne histoire marqué na leen bu dee ñii ci suuf nag mooy ñi nga xamante ne histoire marqué na leen waaye doon ñu woon ay jullit ci réew mi ne fa la fa la fa la nekk muy muy exposé bi euh, lii nii exposé la ci école yi nga xam ne ay école al azar la yu nekk ci Sénégal euh, buñ xoolee bii mooy soxna May Muna Mbàkke ñu ngi ko créé 1995 bii Saint-Louis 1978 Ngaay 79 Joal 92 Kaolack 77 euh, Guédiawaye 90 Réfane 94 Thiès 78 Madiane 2008 Al Azhar Ndam 74 Louga 78 yii mooy école yi nga xamante ne ay école yi Al Azhar la yu ñu yoo ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko moo bu ñu ñëwee fii fii dañ fiy fekk ah ñu bind fii group communication université Cheikh Ahmadou Bamba mooy rajo bi nga xamante ne université Cheikh Ahmadou Bamba moo koy couvrir mu nekk ndaam te nekk Touba ñu bëree bëri xam ko muy UCAB FM mooy group université Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba. lii ay activité la yenn la ci activité yi nga xamante ne daayiratu Ansaarul Islam yi euh, dañ koy faral di am mooy li ma doon expliqué léegi bi ñuy commencé mooy université d'été bi ñuy def euh, cours yi ñuy def ak it conférence yi nga xamante ni nii dañuy faral di ko def par par année lii moom benn portrait la ci euh, màggalu Sarsara gi ren nga ñoo def fi édition de 19 euh, euh, jagleel ko Mouhamadul Fadil kii moo fi représenté Cheikhul Khadim yoonu murit muy sëñ Sidi mu sëñ mu Cheikh Mouhamadul Moutada fii bu xoolee photo bi lépp sarsaara la boo xoolee sarsaara li yëpp sarsaara la ay photo yoo xamante ne chaque année bu ñu demee sarsaara dañ fay jël ay photo bu ñu demee léegi boole ko ci exposé yi ñuy def tiire ko pour mën cee am ay photo yoo xamante ne ay photo exemplaire la yii yëpp bu xoolee lii mooy xasida gi sëñ bi bindoon ci sarsaara hamdi wa shukru liman kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin ànda sarsaara ba xasida gi ba xasida gi jeex kon li exposé la boo xamante ne moom dañ koo jagleel Euh, Sarsara bu ñu ñëwee fii fii dañuy gis ne dañ fa exposé ci côté bi mooy université Cheikh Ahmadou Ba am ne yi euh, yi nga xamante ne ñoo fa am waaye fii ñu exposé fi euh, mu assasatul Azhar muy institut al Azhar ndax ku ne xam na ne université Cheikh Ahmadou mi ngi juddoo ci institut al institut al azhar kii bu ñu xoolee mooy sëñ daam abdourahman loo sëñ daam abdourahman loo moom moo féete woon ndaam moom moo doon jàngal ñi nga xamante ne ay waa kër cheikhul xadim lañ lii moo nekkoon ndaam ca bu njëkk ba lii ay exposé la yoo xamante ne daayira bi ñooy ñoo ko def jël ci ay photo pour pour mën koo pour mën ko tasaare ba tey lii mooy université Cheikh Ahmadou Bamba lii mooy université bi euh, pàcc yi la am bii moo nekk Bambey ku xam Bambey mooy boo jógee Touba di dugg Bambey bii moo nekk Bambey bii moo nekk Dakar bii moo nekk Saint-Louis bii moo nekk Touba yi yoo xamante ne ay université la université Cheikh Ahmadou Bamba yi ay étudiants lañ yoo xamante ne ay étudiants yoo xamante ne ci université bi fa la ñu nekk fa la ñuy jànge fa la ñuy defee seen activité ba pare te diplôme yañ fay am état reconnaître na ko ndax am na ci ay xale yoo xamante ne ci lañ jóge woon jàng ba am licence te léegi ñu ngi liggéey macha allah euh, yàlla na leen suñ borom gën a taxaw bu ñu xoolee ñii boo leen xoolee dañuy bari lool waaye ñii mooy premier génération yi nga xamante ne ñoo njëkk am licence ci université Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu xoolee jóge ci euh, barab yu fasantikoo nga xam ne boo demee université Ahmadou xam meewuñ murit bi tiijaan bi xaadir bi ak laayeen bi lépp lañ boole boo xoolee ku ci ne thèse bi nga def am na ñoo xam ne thèse yi ñu def ñu ngi ko def Cheikh Ibrahima Niass ñii thèse yi ñu def ñu ngi ko def ci El Hadj Malick ñii thèse yi ñu def ñu ngi ko def ci Cheikhul Khadim kon loolu day wone ne euh, université Cheikh Ahmadou Bamba moom ñëpp la ko ñëpp la ubbil ay buntam muy murit tiijaan xaadir ak ak laayeen waaye loolu mooy njàngaleem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ndax ñu ñëpp xam nañ ne moom dafa waxoon ne bu leen noonoo kuy wax laa ilaha illa allah wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa kii moom xam nañ ko mooy cheikh mouhamadul fadil lii ba tey dafa bokk ci église ahmadou bamba bu bi sëñ Mamour Mbacke di signé convention bi ak ñi nga xamante ne ñooy autorité yi buñ xoolee fii fii buñ ko xoolee lii mooy pose première pierre u université Cheikh Amadou Bamba bu ñu xoolee ñaar ñii kii alaaji baara la sëñ alaaji baara la kii sëñ Mouhamadul Muntaxa kii sëñ Maam Mor nga xam ne bi ñuy teg xeer yi boobu sëñ boobu sëñ Saaliw moo doon xalifa waaye sëñ Saaliw moo yebal sëñ alaaji baara ak mun taxa ne leen dem leen ci seen rakk bu ngeen demee ngeen tegal ko xeer yi université mu teg xeer yi muy lii di image boo xamante ne image bu bu bu rafet mooy lii dañ fi wane profilu daayira daayira Ansaaru Islam yi euh, profil ci wane euh, yi ñuy defak ak liggéey yi ñuy def ak yooyu yëpp buñ xoolee fii gis nañ bii mooy université bi nekk Bambey comme ni ko waxee woon léegi bii mooy bi nga xamante ne boo moo nekk Saint-Louis yii nii photo yi ngeen di gis yëpp ay ay photo la yoo xamante ne ay photo souvenir la ci Euh, université Cheikh Ahmadou Bamba bu ñu xoolee ñii kii nii kenn la ci élèves yi nga xamante ne ñoom ñoo amoon licence première licence ci université Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, lii mooy thème bi lii mooy thème bi nga xamante ne moom la ñu waroon waxtaanee mooy alxidma fii taalimi Cheikh al Xadim wa dawlu qaid ar rabbani fii alxidma xam naa lii moo doon exposé sëñ bi ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon euh, ñu fàttali mu tudd euh, Ndongo waaw mu mel ni kon euh, lii mooy li ngeen jot ci fàttali yéen ak jeune murit mauritanien yéen a ànd liggéey bi maanaam ci ñetti at yi ci suñu ginnaaw ñoom ñoom ñoom nekk di ànd ak yéen di leen gunge ci liggéey bi waaw kay jërëjëf sa kàddu yi jërëjëf waaw xanaa sant bu baax rek di gërëm communauté murit yi nekk Mauritanie vraiment ak suñu mbokk mauritanien yi ñu fi fekk vraiment jàpp nañ ci bés bi vraiment tey ci suba rek def nañ benn émission ci télé ba ñu jàppale ñu ci vraiment ànd ceeg ñun ñu ñaan yàlla daal yàlla gën a def jàmm ci diggante ñaari réew yi ci barke yonent bi salaahu salaam barke Cheikhul Khadim loolu mooy dugg moo gi jërëjëf jërëjëf